xoolaguñu kenn ba sa bàyyi di toll ba alaajmaa ni di toll ni yow wan nañu la ba jaaxlewuñu yow nag ba fii ñu toll wanaguñu kenn kon sa bàyyi la dem mag ñi dañ lay dee rek si Cheikh Cheikh Seydou Bakar ci wilaaye ga tàngat bi mu ne woo leen ma woo ma Mansour ñu daw wooyu Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour ca daara mu ñëw ñu ko Ansar Fay delul ci li nga waxoon mu ni ko dama wax ni kan? baba kat sa bàyyi la gën ndax ba mu toll ni yow won nañu la te yow ba léegi wona ko ñu kenn mu ko mën fu tontu sa bàyyi Ansar Fay mu fu dee mbubbam di ko jox sëñ kat ni ko man su waxuma lool mu lamb la won ca poche mu ni ko Mansour waxuma lool tontu ko mu ko bàyyi gaynde bu jur muus gaynde gaynde rek lay jur dugg ci biir néeg bi ni kon ma bàyyi leen ak gaynde gi ba mu yàggee nekk xalifa du tey ba ko ci alxaaji Mansour turandoom bi di ko wax naan ko fa ya ahmad al mansour najla al xalifati fala zita mansuran la daa kulli wijhati booba du tey keroog ba ko cerno saïd nuuru ni bëri commencé sa papa dog ko dem ci xam-xam bi dugg ci li Cheikh Omar Fouti def daal di jaxase affaire yi génn dóor kupp mu jékki-jékki ni ana ana ana Mansour doomu Babacar bi andi ko moom il faut que mu wax mu ak mu ni ko waxal yàllaa la wax loo yow eh, sa xam-xam nekkul ci sa dënn mi ngi ci sa laam yi ba yox muy génn bu ëllëgee balaa kenn jariñu yaay ubbil gaa yi loolu ko Seydou Seydou Nourou wax gàmmu gi Cheikh Hadj Abdou mujj a def 97 la ko wax ni ko yaay ñaan ndax yow loo ñaan mu nangu loo wax yàlla d'accord ñu xëccoo ko mu ko ñaanal wallahi ak moomu la ma sama maam Abdou woo ci rajo yi ma ak si ñëw ba wuy si ko ci biir cérémonie officielle bi ñu naan Habib wuy sama wuy sama ma ak si ma ñëw sëgg ci noppam mu ni ma damaa mara naan wallahi tallahi waaye may naane ma man ko di nga naan lisi dugg ci biir campus bi wut ndox ay jus daal di woo Pam Maxtaar Kebe xool duut ba mu sol gramme moo woo leen ñu ñëw ma ni ñëw leen mel na kuy dee sama parce que ay gramme bu ngeen sol ñu couverture ñu couvrir ko ñu def couverture jox ko mu naan mu ni baa Pam Maxtaar naan ko papa déedéet sa waaye kay defal naa loo xam ni kenn gisu mu naan ba doyal li ma ci des dencal la sa papa ni ma waaye loolu ñu doon tànn loolu sa maam doon doy ma ne ko dafa maroon naan mu ma taxee kat sa maam Abdou naan xelam bi yar ci woo la pour nga may ko nga may ko lu mu naan ci nit yàlla bu toll ni moom ci jamono bii mu yow yoo xati wallahi la wallahi lànk man ñi lànk rek gaa bu ne daan nañ bu ma agsee lànk sama gàttaay ak samay ndawaay ma ñëw rek bu xon naa la mbëkk mbëkk boobu ma ko nuyoo rek téye ci loxo bi gars yi dina teq jël lu ne ma téye loxo ba rek aj mu kondam kondam ma ba mu agsi waaw sëriñ bi loolu la ko yàlla defaloon mu nekkoon tabaarakallaahu nitu nit ñëpp ñëpp ko doon fekk si catholique ak jullit daf daan wax ca Tiwaawan nii kër Cheikh Marouba ak kër Cheikh Awa Balla mu ne yéen ñii nga xam ni yéen sama waa kër maam borom Touba maa ngi leen di wax ni képp kuy am soxla jóge fi tey ma dem Touba na la wóor ni boo demee la ngay dox sama sama maam borom Touba dina la ko defoo ku fi romb baal ma parce que lépp lu la waa Touba war a defal maa leen koy doxal maa leen koy defal ndax man lañ jur ñu la wallahi sam bàyyi mooy puso jëng dafa ñëw nuyu si ko ànd ak soxna Awa Gadiaga mu ñëw nuyu ko rek mu ree ni ko waa si na so ni soxna Awa waay sa papa ree koy tàpp mu ko daal koy tooj diggante doomu bàjjen ni yow yaa kii nangam soxna Awa daal di ànd ak moom fàtte ni ñooñu ñëpp tooj na ko ci ñëw sama néew yaay ni e woo leen seen mu ñëw ñuy soxna Fatou daal di ñëw nuyu ko ba ni ko ah, sëñ Masou da léegi nga mënoon tooy waaye xanaa bi mooy sax nga jege sa papa réew a daal ci suuf ni ko yow da ngay foto mot bu suuf ah léegi nga ma ko wax nga ma ko waxatee waaw nga yàlla noonu lañ bokke woon waaw Mouhamadou noonu la daan ñëwee caawan waaw di defante lu baax xam ñoo bokk maam maam tabaarakallahu loolu nag ñu bëgg a wax tabaarakallahu nit ñi ni leen li ñuy jàngat ci fàttaliku bi yëpp nekkul ni rek sëriñ Mansour ku mënoon a sañse la tey ana sañse ya bàyyi na ko gis nga keroog bañ koy dugal ci suuf xam nga sëriñ bi ñëpp xamoon nañ ni ku mën a sañse la kenn daf koon sañse benn basin bopp gis nga armoire bi dafa fekk del te lebu ko am ko kenn lépp moo ko moom mais ba mu dugg suuf benn basin tomb xoolal kër googu kenn fekk ko moom dong moo ko tabaxal boppam moomal ko boppam banque topp ko dara topp muy R plus 4 néegam bi mu dëkkoon lal bi mu bi mu yoroon lal bu gàtt ba boo boo demee ba léegi moo fa nekk chambre à coucher boobu 17 millions la doon jàpp Moustapha Lo moo ko indi ci moom jaay ko ci 12 millions et quelques wàññi ko facture baa sëriñ bi ñu gert noo ko néegam chambre à coucher boobu 17 millions télévision yeeg climatisation yeeg yëpp appartement ñu fekk foo xam ni fa la daan. defar benn ay mbaar biir fu dem ay appartement mu génne ko ci salle chambre à coucher 17 millions yóbbu ko ci suuf sa xar basé topp chambre à coucher ba topp ah gis nga bi muy jógee Paris ñu andi ambulance ba yegg limousine ba fekk suuf ana limousine ba keroog ba ñu duggee ci avion bi jógee Paris bi ñëw bi ñëw Sénégal keroog dama jékki-jékki ci biir avion bi la sama rango ñu wat xam nga lu tax dama toog ma xool jékki-jékki gis xam ni ma soo ñëwee nen ak moom bay soldat waxuma ak di toog ak moom ci fëtëy nga toog ci avion boo xam ne wóor na leen ñu ngi ci kees muy sa bàyyi bi sa kilifa bi sa sëriñ ñu def ko ci kees nga féete ko sañ se toog ci kaw mu nekk ci biir kes gi nekk suuf féetale suuf te mënu ci dara yow mënoo ci dara loo ci mën ku jaamuwul yàlla nga ñu tool yi bare bare bare yàlla bàyyi fi lu coow li bare bare bare yàlla moom mi ngi di teg yàkkamtu mooy xalim mas naa wax sama papa xalim mu ni ma mooy lewet ma ne lewet mu ni ma na lewet ma ko luy xalim mooy dënniirlu ma ne ko papa lan mooy dënniirlu mu ni ma mooy ku toog di xaar te xam ni dara du la rëcc jarul yàkkamti mu ni xam na ni doomu aadama yi kenn du ko rëcc kenn du ko rëcc may fàttali sama bopp di leen fàttali ak di leen bàyyiloo xel ni wallahi tallahi amul benn sëriñ barke mam alaaji Malick bu nekk fii bu la mën a resal ëllëg bépp sëriñ bu la ni danaa la resal daf lay nax bu lu dul nañ ànd jaamu yàlla gis nga Seydi Hadj Malick daf doon jaamu yàlla bët yi gëmmu sëñ Babacar si noonu koo ci mas a gis mas la fatwa yonent bi moom lañu ñu wàcce ci moom julli wàcce ci moom lépp te daan na julli ba jël ay xeer naafila rek laa ko ma julli farata naafila mu jël ay xeer ak ay buum di ko takk ci ndiggam pour mën a taxaw pour mën a naafila ku yàlla doon wàcce jaamu yàlla wàcc ko ci rasulullah moo tax Seydi Hadj Malick mu wax yonent bi wax ko yàlla ma dax nag jarul way ma dax nag Moustapha maznan ajiban li tax fi leen xafuuru li yow mi diini ma dax nag Moustapha déggal maznan xam nga masdaru lafdi dafa am ak masdaru maanawi masdaru lafdi yu mooy madax naa madxan waaye bu fekkee masdarul maanawi la mooy madax naa masnan ñaari masdar moo am lafdi yu wala maanawi yu lafdi yu mooy baat bi ngay jële fiir bi ci ngay tëgg masdar bi maanaa mi nag mooy lafdi yu bi du niroo ak masdar mi madax naa madxan benn baat waaye madax naa masnan du benn baat kon bii lafd yu la ci maanawi sidi xaj maay madax na Moustapha masnan ñu ni mu ne ajiban mu ni waaye nag def moo ko loolu li tax fi la ñuy xafóoru bi yow mi diin bu bésu pénc ma teewee ba alastu bi rabbikum de ka ko waxoon dóog ni li ma ne mun pour yow yàlla nee na bu yow mal qiyaamee nee na ba ma reyee ñëpp ba ñëpp jeex ba mu des malakul mawti maanaam malakul mawti seetal ma ku fi des ndax waxoon naa ñetti kullu kullu nafsin daqiqatu mawt waxoon naa ni kullu man alayha fan waxoon naa kullu shay'in halik illa wajha hmm. xoolal ma ku fi des malakul mawti vérifié ba seet ñëpp li ko ñëpp jeex na mu ko mën na am ñu la échappé man kenn ma échappé waaye bala may vérifié dinaa la rey ba pare parce que yow rey tey man lay moomee yow malakul mawti ni ko mut yaa malakul mawti deewal mu daal di faatu moom kese moom moo fi doon mujj ñu mu def ni ñëpp ba ñu jeex yàlla rey ko yàlla nag di vérifier boppam daal di li ma dem mulkul yow dox wëlbatikuwaat arrière dem droit dem gauche dara du yëngu xadara ba moo yëngu ni ko lillahi waxidan qahar al yawma tujza kullu nafsin bi ma kenn des yow rek yaa fi des waxtu wa jot mu ni nañ ko yeeri sang ba rasulullah yi jëkk a yeer ñu jëkk a dekkal kenn bala muy jóg moo yonent bi jëkk a jóg dafay ye dekkal azrafil azrail mikail jibril ni jóg daw yeeri ma sang ñu ak kenn ku nekk di ko jiñanteeg sa morom yaa ko yee yaa koy dekkal ñu naan ko comme yaa xeeral ba قم يا نبي الرحمة قم يا شافع الورى قم يا نانغم من بريتو لأمتي أمتي أنا سروحت وحيد سما كن من قفة يا رسول الله كون يوم بي صلى الله عليه وسلم بو أمي لول يب دي جولي با خديجة نانكو أفلا أكون عبدا jaamu yàlla ko bàyyi wax di masawu di métti lu trajet bi nga xam ni trajet bi nga xam ni am na ca màkk te nag coow li daf ci bare gis nga yàlla kenn du def pression ci moom coow lu bare coow lu bare gis nga jullit lu wàcc ci kawam daf koy muñ loo yàlla ثم ملاك مالك تلفوني وردني بالقضاء ربي مصبرني على بلائك يا رحمن يا الله يا الله ما يلي نان نعم من ملاك مالك من مول بو ما تيجي نات نعم. يا الله مو ميلو نات نعم. تغرم لو سمو بو مو نيه بغرم يا الله مو تيجي سامو لولا سين حاج مالك تاني يا الله بو مو ميلو دوسك دوما باتمو kon muñ loo ma ko gërëm loo ma fu ma ko gërëmee ba pare bu mu ci gis sama bopp ni ma la gis nga bu lu mel nii amee te bu ko neexoon yàlla mu def lu raw loolu fii ci Sénégal gii te kenn du ci mën dara séeréer bi dafa ni woon bi ngóor bi bi bi bi ngóor wooy juróom demee Màkka des fa mu ñëw di ko jaale si tam ni ko ngóor xam nga ni kat yow moom yaa ko tey ndax yàlla ji da fekk sa biir kër di la rey boo ko fekki fekkee biir kër du ma la wax tey yàlla moo tudd nombre ba ak mu mën a toll yàlla waxoon na ca azal gis yàlla ba bu lay bind ba nga mat ci sa biiru ndey bala lay génne la sa liste di wàccaale ñaata at ngay am ndax di nga am wërsëg doo am wërsëg fooy jaar looy am di nga am soxna di nga dem màkk doo dem màkk di nga def lii doo def lii takk ñu daal di koy defar ba dossier bi sotti boo judd rek ñu la koy takkal yu bari boo ne jëpp malaaka mi daal di koy jël te ànd ak yow loo nar a def te du la nekk ci biir liste ba mu jàdd loolu noonu la malaayika yi def loolu moo tax nga am malaaka bu nekk sa ndeyjoor bi nekk sa càmmoñ moo tax boo demee ba ca kaaba bi di wër ngay wëre sa càmmoñ bàyyi sa ndeyjoor sa ndeyjoor def parce que dañu bëgg booy wër kaaba gi doo am a am kaaba gi bi nekk sa ndeyjoor dundal yiw rek mooy taxaw ci diggante loolu indi kaaba bi ñu koy wëree càmmoñ ñu koy ko wëree ndeyjoor tey nag yàlla ña fa des foofu la ko yàlla bëgg ñu ñaan yàlla yàlla na fa yaman yi waaye bu Sénégal yëpp demoon màgg yàlla nagu ñëpp dee fay ñëpp a fay dee nañu bàyyi coow li te dalal xel gis nga nit jullit du tiital moroomu jullitam ci lu dëkk boo demee ci laxdari yaa ngi jàng wa taxwi fii fii xayri xaqin sharir ak ragalloo muskallaf fii xayri xaqin ci lu dul dëgg sharir bi ko joon mais daal di indi jël yëpp loo léegi xàmmeetuñu lu jëm ci wàllu yàlla ak lu jëm ci wàllu jël lépp nit ñi mel ni ku gëmatul yàlla dégg naa man France la ma fekk maa ngi dégg ñu naan dafa am ay ñoo xam ni dañu doon def marche ni kenn wutalu leen ay visa ñuy yooxu di wax ni Makka wala Barsax ay magum jëm ay jullit yuy def marche ñooñu ba ñuy marche ba dégg ñi nit ñaa ngi dee ca Makka lu ñuy wax dégg naa ñu ngi ni mig kenn déggatu leen te kat jàmm amoon nga xam bu jàmm amul ba léegi nga dégg ci tool waaye comme dee yi na mu am na ñoo xam ne ñu ngi ci sori. il est il est yàlla jërëjëf waaw am na ñoo xam ne ñu ngi ci seen ndox di wax ah, bi dégg ni diw ah tey de mu ngay continuer ah yéen de yàlla suturaal na leen ba demu leen sax sax yàlla kay mu ne xam na ko keroog moo koy soog xam. bu la yàlla indee ba ci buntu bax mi ba nga rëcc su boobaa ngay doog xam ku yàlla su boobaa la wax rek nga waaye nattu la da ngay lànk nga dem màkk il faut ñu xam ni ba euh, ku ci ñun ñu doo dem nit ñi nañ leen di préparé ci wàllu diine du ku mu neex rek jóg dem am lu dul jeex doo dem am lu dul jeex doo dem màkk nga gis koo xam ni du am lu mu reere dépense tëggu ñu xëy yóbbu ko màkk te gis nga yàlla dafa am loo xam ni domaine am la kenn du ci bokk bés ne ma nekkale ko kaay nee naa leen iraada ak machia ak xadro qadaa yàlla kenn du ko ci fekk nañu delloo si sunu xel delloo si sunu sago jël suñu bopp jëlaat suñu lépp delloo ko yàlla yu mel nii bu agsi ñu jàngat ci suñu gëm yàlla jàngat suñu dellu ci yàlla toogaat tuubaat ni ah ñu kat dafa mel ne am na lu ñu def nañu tuub noonu la mag ñi daan def bu taw masoon masul ñëw wala musiba di am wala mbas wala dara da ngay daw deful waat dem woote waat jàkk yi daal di taxaw ñaan yi am nga tuubaat delluwaat ci yàlla waaye am na ñoo xam ne tey man dem naa ci benn keroog dama dem di ziare ci sonde man du dem du dem sax ci ay xew yooyu gars yi doon ay man du ma ganale du ma teew du ma du ma gunge man yàlla defal na ma ci boo dee ganale fay teg waaye mu am sama benn xarit boo xam ni dafa jógee màkk mu yógee nii wax ni jóge na màkk ndeke yàlla nag moom bés boo fay jaar par hasard rek man naa fa jaar rek fa ziar ko continuer ñëw rek gis leen nga ca kumbaay boo xam ni man du may dugg si maa ngi gis biti bi ñëpp a ngi julli timis bay maa ngi ñëw fekk sama gars yi di nga ca tabax ma ni waa jàng na ko sañ seen nag jéeg gi wër muy bundaa daa taka naa taakala woy makka man daal bi ma agsee ci buntu bi leen xam nga yéen ragal leen yàlla est que xam ngeen ni timis passé na ngeen toog fii di fàttoo jóg leen julli ji ngeen nekk ñu naan ah, man waaye ana imam doo ñëw baa me nga jàpp mu nekk bañ jiitul mu jiitu mag li xam ñu daal di taxaw julli timis fay ma ni seen ganale mooy la war naa sant nga war a tey jullit ñëpp moo waroon a am kersa ku ci waroon a xumbal jóge màkk ñëw billaahi wallaahi bu fekkee ni yow ngor gor mooy daw sa yaram war naa rus nga jóge màkk sa nawle yi des fa ñëpp faatu ñii nekk ci ay jafe-jafe nekk ci coono ñii nekk ci feebar nga war a doy loolu ñaanal ña nga bàyyi nga ñëw fi ñu xumbal nit ñi dañuy font rek dañuy wax waaye kenn gëmu ci yàlla yi ñuy wax yëpp dara du ci nekk mooy li Seydi Hadj Malick boo demee ci ci fay Quraan mooy li El Hadj Malick doon naan min jildatinaa ca bokk ci fay Quraan bi boo demee mu naan xawmun hudaatun ba muy naan boo fii daxalu boo fii daxalu ci ci cakkañ mu naan xaw mu duaatun min jildatina xamul ko waxee ci waaw nu mu ko waxee wala ca kifaaya ba ba ca bopp kifaaya bu raate ñu na ba waaw ah waaw Seydi Hadj Malick di wax loolu di wax ni di wax ni di wax ni jamono dina ñëw ñi ngay gis ñu nekk ci yépp maanaam kuy wax musiba bu nekk ba mu war laa yéen bu nekk jinne nit lay doon laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alaykum ma anittum harisun alaykum bil muminin raufur rahim fa in tawallaw faqul xasbiya allah kon may ñaan rek nit ñi ñu am retenu buñ fi jógee nañu ñaanal yàlla ñu fi jógee gis nga lu coow li bare bare bu ëllëgee ku war a dem da ngay ku fa war a des da nga fay des war a dellu si da yàlla daal pare na démb bu ñu paree pare na bu ñu paree bu pare na kulla yawmin huwa fii sha'nin shu'uunun yubdiihaa laa shu'uunun yabtadiihaa yàlla li mu doon sos la mu doon nas luwaaya voté na ko yàgg na exécution bee ci des te bu nekk lu war a feeñ la dafay lu war a ñëw dafay kon nañu xam ni Sénégal gii réewu jullit la mag ñi ñoo sos kenn mënu la wax wax wax ba yàq maa ngi dégg benn waaye trop mu naan il faut sëriñ si xam ni ñun ñi nga xam ni dañoo jàngi ci àll bi ba ñoom il faut ñu wutal leen place ci ñoom il faut ñu xam li ñu bëgg daal ñu ngi sant ñëpp di sant soppi sëriñ Mansour yi mm-hmm. di daayira bii di sant di ñaanal yàlla mag ñi fi desandi yàlla yàlla bàyyi leen di ñaanal sunu waajur woowu di may ba kambura ak mag ñi mu bokkaloon bés bi yàlla yàlla yokk seen leer wax dëgg yàlla tiitoon nañu jaaxle woon nañu boo gisee daayira bi toog lu yàgg defuñu conférence jaaxle woon ak jaxasoo ak it ki ñu amul woon ku dul moom muy Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour dugg ci suuf bàyyi ma tàmbura wéerat ji ni dén na waaye mu fekki góor yu metti yooyu jaxasoo dal ci seen kaw wayeful jàppoon na leen ba tax lu mel nii gëjoon fi waaye fa tabarakallahu lépp lu ñu ragaloon ci ginnaaw bàyyi ma tàmbura njaboot bi dalal nañ ci xelu daayira dalal ci sunu xel yal na yàlla dalal seen xel yal yàlla fay leen li seen waajur wa defoon bu leen neexoon ba mu demee ngeen téye seen loxo te kenn du ci mën dara te ñoom nañ leen yow ba pare waaye su ngeen wëlbatikoo nag fa mu tegoon tànkam ngeen teg fu ko raw dalal xelu daayira bi dalal xelu njaboot gi ak quartier bi yal yàlla wuutu leen fayal leen boppam te la ko ko mayoon mooy lu mel nii rek buntu baagoo yoon waagoo yal yàlla sàmm leen moom day fu mu tëdd tey jii dana tàll yi parce que nii rek moo doon dëgg bëgg moo doon lii wóor na ma ni tey ñoo ngi fii di bégu waaye moom itam ma nga foofu di déglu bokkam ñu gis di sant képp koo xam ni taxaw nga ci bés bi bokk ci yàlla na yàlla fay la di sant imam yi ci jaar yëpp dale ko ci Abdou Aziz Mbaye bi nga xam ni maa jëloon daayee di teg ko ci loxoom mu di leen dimbale ci seen wàllu diine di daayira bu mag bi ak bu ndaw bi ñu dem ba ñu naan daayira bu ndaw bee mën bu mag tabaarakallahu suñu njabootu jigéen yi tey koo ci gis ma ci ay doom ak ay sët ay ñoom roqee jaane ñoom fat si seegi boo demee bitim réew fekk fa ñoom yaa ñu te li ñu doon dox fii ñoom ba tey jii ña koy am di ko defoo tey jii daayira Témérite bi ñoom yaa bay ñoo ko yor ci biir octobre bii laa leen di defal seen programme ci kàttanu yàlla ca Espagne ñu takk ànd ak ay rakkam di ñoom Astor ajak Khady Mbaye boo demee Khady Mbaye tey ma nga ca France waaye programme bi ñu am di rahmati ba nekk ca France tey moom moo ko jiite nga dem Italie fekk fa ñoom Asi Diagne mu takk ndigam ànd ak As nekk ca Novara. di leen defal xadara bu mag te ñoom ñëpp ci daayira bii lañu soxli ko nga dem Amérique fekk fa euh, ñoom ñoom ñoom ñoom maasaki ñoom nday deere ci façon yu mel noonu ba ci démb sama njaboot jógee dem vacances ma ne leen nëbbatu leen ñoom yaa mbay parce que xam naa leen ay dof lañ yaa mbay yëpp ni xale yaa nga fa rek mu jël yoo xam ne du ca fayeeku waaye nee na xale yi jaral nañ ànd ak ñoom ak tumbay fii ajaa fii xadi fii ñu ndaar aayoo béyoo ba njaboot bi di gis bu ñu demee noonu la ñuy def baax lool mosuñu yëkkati mukk lenn lu dul lu mel ni yëkkati nañu naaga xale yi fii ànd ceeg ñoom xool ñoom bay jéegi yi nii tabaarakallah lu fi xew bu la jotee mbay nii moom laa ko wax dama ne ko yow dama lay ñaanal yàlla yàlla taxaw mbay ku baax la mbay ku baax a baax la waxuma ku baax gis na lu xew lu mu xat-xat dina la yónnee message bu la dee jot di ko yëg bu jot di ko yëg moom yaa xam nga wuyu wala nga bañ a wuyu waaye ay message ak moom moom ay message am la yor rek moom nga dugg boîte vocale ne génn boîte vocale ak yoonam nekk taf booy ubbi li ngay njëkk def mooy message ku fi feebar ku fi dee ku nekk ci jafe-jafe ku programme yi amee nangam nangam fa tabaaraka yal na yàlla jàppale leen que xale yi nga xam ni tey ñoo jël relève bu wuutu ñooñu ànd ak seen président Ndiaye man di ku baax moom itam uuf xale yi wéttali leen jàppale leen nekk seen wayjur nekk seen mag nekk seen kilifa.